tarbiya yu Serigne Saliou Mbacke yi te njiital Serigne Ibrahima Diouf ak mboolem soppe yi nga xam ne ànd naa ak ñoom amal nañ ñetteelu édition ndog yi nga xam ne moom la ñuy waajal at mu jot di ko toggee ca kom ci daara Daaru Salaam ngir jébbal ko mboolem ndongo yi nga xam ne ñoo nekk ci jile daara di taalibey Serigne Saliou Mbacke yi mooy liggéey bu am solo boo xam ne at mu jot day gën a yokk bu baax a baax ndax jublu gi mooy taxawu mboolem ndongo yi nga xam ne ñoo nekkee ci daara Daaru Salaam ci Xelcom ni nga xam ne Serigne Saliou Mbacké noonu la leen daan taxawoo ci biir weeru koor ñoom ndongo tarbiya yi nga xam ne nag dañoo jot a jaar ci daara ja xam loolee bu baax a baax moo tax tey jii ñuy wuutu sëriñ bi ci googule fànn di taxawu ndongo yi nga xam ne jamono bi ñoo nekk ci daara ja yendu ak ñoom waaye jébbal leen ay ndogu yu am solo liggéey bi nag ñoo ko amaloon dimanche dëppoo woon ak le 16 avril 2023 doonoon ñaar fukki fan ak juróom ci weeru kooruk 1444 ginnaaw gàddaayuk yonent bi salallaahu alayhi wa sallam mbooloo mi nag bi ñu agsee fii ci xel xelkom ci daare daaru salaam wàcc nañ mboolem jumtukaay yoo xam ne moom lañ indi woon ngir fas yéene togg ndog yi ginnaaw bi ci lañu soobu ci liggéey bi ci njiital Serigne Ibrahima Diouf àndoon kook mboolem taalibe yi nga xamante nii liggéeyal Serigne Saliou Mbacke rek moom moo leen ñor ñu defaral ndongo yi ay ndogu yu mucc ayib الباقي ñaanal jàmm sax dàkk ci barke Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou waa ñu nag ñun la waa kër Serigne Saliou di suñu njiit di Cheikh Ibrahima Diouf ñoo ngi koy nuyu baax di ko ziyaare di ko ñaaral jàmm di ziyaare bu baax sunu yaay soxna Ndey Kumba di ko ñaaral jàmm bu baax man la soxna Ngoone Samb ñun Salihaat yaa ngi nii ah euh, chaque année nag ñu def ko ren la suñu ñetteel bi yoon yoo xam ne ñu ngi fiy def fii si ndogu waaye nag ñu kook sunu jëwrin mu Cheikh Ibrahima Diouf Diouf ñoo ko bàyyi Samba borom gaañi waaye nag ni nga mën a mel ndax Serigne Saliou Mbacké képp koo xam ne daf laa tàggat ci loxo nii rek la nga mën a mel ci lu baax Cheikh Ibrahima ñoo ngi lay ñaan ci daraja yàlla yonent bi Serigne Saliou lépp loo fi man ren bu ne yàlla na yokk kontaan nañ trop képp koo xam ne ànd nga ak seex Ibrahima Diouf rek kontaan nga Cheikh Ibrahima ñoo ngi lay ñaanal bu baax waaye nag yéen gàcce ngaa làmb képp koo xam ne nii rek jóge nga Touba rek ñëw rek am nañ kontante si yow ñoo ngi lay ñaanal ci darajey Serigne Saliou képp koo xam ne def nga saw ñax bu nee yàlla nga mën lu ko ëpp ci barke Serigne Saliou góor ñeek jigéen ñeeg sunu yaay yeeg sunu mag yeeg sunu grand frère yeeg sunu jabar yeeg ñëpp rek ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm wasalaam mën na soxna Ngoné Samb wax dëgg yàlla ñu ànd liggéey bi liggéey ko liggéey bu rafet ni may ñaan rek mooy yàlla nañ ko ànd di ko liggéey junne at ci barke Serigne Saliou li may wax rek suñu jàmbaar ja Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké amul tànku ginnaaw tànku kanam rek lu ñu mën daal ren yàlla bu bu déwénee yàlla nañu mën lu ko ëpp barke Serigne Saliou di sant jëwriñ torop nag ndax mënoon na luñ ko jox mu def ko ci kontam waaye bañ na ko ba da koo ubbil compte bopp boo xam ni bu ma ko yónnee woon sax 4000 rek mu ni ma dugalal ma ko sama compte waaye bu boo ma ko indilee du du baax ci man lekkul dara bàyyi kenn loo ko laaj ne ko lii da cee war a am mu ne da cee war a am. xaalis buñ ko mës a indil buñ luñ ko mës a wéef ah jaarale na ko noo xam ni ci anam biñ ko bëggee ngir liggéeyal Serigne Saliou kon ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp ak équipe bi mu àndal yëpp di leen ñaanal bu déwénee yàlla nañ fi wàcceel lu ñu neex rek ci barke Serigne Saliou. la muy mbirum Serigne Saliou ndax lii rek dafa am solo moo nekk fi barab di fa liggéeyal yàlla ba am sa ngërëmal yàlla dem di wuti sàkk ju wërsëg bay am wërsëg di jël wërsëg woowu di ko defaat ca bërëb boobu noonee loolu yaakaar naa yokkute gënu koo kawe te it wax dëgg yàlla moom la Cheikh mii fondé ba pare woo ci képp koo xamante ne bii bëgg nga Serigne Saliou yaakaar nga Serigne Saliou doyloo nga Serigne Saliou te xam nga ne Serigne def na ci yow ndax kuy dund ci kaw suuf nii rek jamono teg Serigne Saliou Serigne Saliou am na lu mu def ci yow loolu amul sikki sàkka ba pare it ñu bokk jëmuwaay ndax bu fekkente bi yàlla dafa dogal ni ñu bokk benn Serigne Saliou bokk benn suuf suñu yow muy Touba kon ñoo war a bokk lenn luñ bëgg muy bëgg bëgg sëriñ te ci loolu rek lañuy dox ñu àndoon ko suñ jëwriñ ji ak euh, euh, muy sëñ Modou Niang mii nii ak it wax dëgg yàlla am si Ibrahima mi nga xëy wax dëgg fa yàlla am dëgg fa yàlla am kuñ jara ñaanal la barke Cheikh Ahmadou Mbacké Saliou ku jarañaanal la ndax man de li mu def ci man def ko ci sama jëwriñ ji def ko ci ñi nga xamante ne bii xaj na xam nañ ko gis naa ci sëñ Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou loolu rek yokkute la nit koo xam ne tuddee xol yo sedd bég ah loolu yokkute la barke Serigne Saliou ñun nag suñu xol sedd na mënuñoo wax barke alxuraan liñ a wax ñaan yàlla di ko gën di man di ko gën di def barke Serigne Saliou loo xamante ne bi war na rek suñu ko kii rek bu soob yàlla ñu nekk ca nañ ñoo ngi siyaar baax di bëggee mbokki taalibe yi di am mbégte ak kontante di jiital ci nuyoo bi Cheikh Ibrahima mii di ñaan ñu gudd fan lool ànd ak wér di sant yàlla di delloo njukkal Serigne saaliw ci ndimbal lim ñu mooy ak tawféex ji ñu teewaat fii ndax ñun dey comme li ñu wax ñun bu ñu taxawoon fii rek taxaw nii rek ne maanaam cant gi ñu bañ ko wax sax ku ñu romb xam ne ñun dañuy sant ñun cant gi dem na ba àgg ci ñun foo xam ku ñu romb rek xam ne ñoo ngi sant te ñun kat sëriñ saa yi li ñu koy sante ñun wóor nañu ni mënuñoo dab li mu ñu defal lott nañ ci di ko sant maanaam dañuy nekk di wax maanaam di jéem di jëf di def yitte mbiram waaye xam nañ ni mënuñoo sant ba dab ko ndax lim ñu defal kat rëy na rëy goo xam ni mënuñoo wax lu ko dab mënuñoo jëf lu ko dab mënuñoo am yitte ju toll ne lim ñu defal sant nañ nag sëriñ Saliou Mbacke ci boole gi ñu booleeg Ibrahima mii ndax dañoo maanaam soñu ci liggéey sëriñ Saliou bi sama sëriñ bii nag Baye mii day mel ni ànd ak moom ci liggéey liggéeyub Serigne Saliou bi tawféex la ndax man de ànd geeg moom sama sag la sama sutura la sama teraanga la ndax euh, saa su ne su liggéey bi jógee mu jógloo ma te saa su ne daf may soññ ci mbir mi ndax dafa may ëpp pëste fuuf lu mu jëm jéem loola xaaj ba mbaa lu mu jëm jéem loola lu lu ko ëpp ngir rek bëgg sa njariñ ñoo ngi ñaan nag ñëpp gudd fan mbooloo mi képp koo xam ne ñëw nga nga gudd fan am wér am xéewal am wërsëg. te suñu xool yi sëriñ Saliou képp na ci ñu gën di ko bëgg di gën di ko liggéeyal ndax day liggéeyal sëriñ Saliou rek ay njëriñ ñun de wallaahi na si mag waxtu wi xam nañ ni fii ñu bi ñu commencé ak tey fi ñu yegsi bu ñu àndul woon ak sëriñ Saliou Mbacke mënuñu ko ku dul sëriñ Saliou mënoo ci ñun lii nga xam ne moom la sëriñ bi def ci ñun ñun àggatul fu ñu koy waxee ku ñu xool rek xam ni sant nañ te ki ñu tax a sant ku ne xam na ko muy sëriñ Saliou waaw ñun daal moom sant gi moom kiimaan la mënutu mënutuñ koo tudd daal daa dem ba àgg foo xam ne comme li ñu wax géej moom kenn da koo mënta téeg loxo waaye li sëriñ saa yu def ku ne xam na ko yéene yi nag rëy na waaye ñoo ngi ñaan fa suñu yéene àgg rek yàlla na fa suñu man àgg bañ man koo jëf ni niñ ko bëggee di soññu nag kuréel gi ñi nga xam ne ñoo bokk ci groupe WhatsApp bi di yëngu saa su ne ñuy wax ci ci ci ci ci ci ci WhatsApp bi di vocal di soññu gars yi di waxtaane sëriñ bi nañ ko def yitte sëriñ Saliou daa baax sëriñ Saliou daa mën a dimbalee sëriñ Saliou daa mën a nangam daa mën a nangam sëñ bi de xam nañ ni mën naa def lépp mën naa def lu ne waaye nañ ko def yitte yitte ji mooy ñuy def pësteefu maanaam di jëf ci moom bañ koo yemale ci wax ji te bañ koo nekk di ko di ko tardeel di toog di di toog di déglu di toog di déglu bañ ni bis bi jàpp nañ ko nga doog a jóg day tax doo jekku mbir mi bu ñu jógee fii nañ ko commencé waajalaat ku fi jógee xam ni yow liñ fi war a def déwén kenn warula coo jiitu boo mënee def lépp yow la war bu ko defee dërëm boo am ñaar dërëm boo am nga def ko ci sa programme li ngay defee yitte ci leneen li ngay def ci sa adduna tu mu lay jëriñ nga di gestu liggéey bi di ca def loo fi def mu nekkal la fa bu ko defee bu ñu agsee ci liggéey bi liggéey bi day yomb lijjanti bi day yomb boo ko defee dikk bi lépp day yomb ñu xam ni lii fi nekk ñun ñoo ko fi war a def lépp lu fi nekk ñun ñii ñoo ko fi war def sëriñ bi de dimbali nañu dimbali nag maanaam di jéem a def ci moom mooy delloo ko njukkal yàlla nañu sëriñ bi loolu lay dimbali ci barkeb Cheikh Saliou Mbacké ngi ñaan sëriñ Saliou Mbacké yàlla nañu yokk dimbali ci barkeb sëriñ Saliou Mbacké waaw waa salaam yi ngi siyaar yaaram maa ngi bëggee ñëpp nag di tuub ci wax ji nag kàddu yi moom dana diis nag waaye daa mënta ñàkk maa ngi jégalu santaat di santaat sëriñ bu baax comme suñu Modou Niang ñun moom amuñu lu delloo njukkal sëriñ bi waaw àdduna mënuñu fee am lu gën a rëy sëñ Saliou comme ni ma ko daan waxee rek lu lu nu gën a naqari ñàkk koo gisit mënuñu ko am waaw daa def ci ñun lool àdduna moom gisuñu ku ñu ko mënal waaw te loolu yëpp sama borom la yàllaa ñu booleeg moom waaw sant sëñ bi moom dañoo war delloo njukkal mooy mooy nag lu ñu am mu néew ak mu bari ñu bokk ko suñu bokki dongo yi eh, xëy na nag lii ñuy def sax da ci am buñ ko mënoon buñ ko mënoon loon suñu bopp ñun kese kon du ko jar sax waaye woote gi day taw feex ndax lu baax boo koy def da nga cee war a ànd ki nit boo ci wéetee it mu baax waaye boo ci ànd nit mu gën a baax waaw moo tax na ñu ngi sant ñëpp rek di sant mbokk dongo yi di sant jëwriñ yi nga xamante ni moom la ñoom la ñu fekk si muy suñu jëwriñ ñoom suñu jóoba fay ñëpp rek ak ñoom sëñ Ibrahima ak joori ñeeg mbokk yëpp ak mbokki donga yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax di sant it waa asalaami moom moom jooriñ ji sëñ Fallou si la nga xam ne saa bu jotee dañuy booleek ndawam ngir bëgg rek ñu archivé ko ndax lii daa bokk ci archive day tax ñu gën a jaaju dañuy soññ rek bu ñu gisee vidéo bi xam ne lii ci la ñu nekkoon te waruñ cee jukk saa buñ ko xoolee suñu xel di ci ne ñoo xam ne àdduna daal fim mu ne riiru jamono yaatu na lool waaye li fi sëñ Saliou bàyyi woon du duñu duñu duñu duñu gis lu ko fi lu ko fi gën waaw lu ñu lu ëppal équilibre loolu amul sëñ Saliou daal fi mu teg nañ fa teg tege lu ñu jëm suñu kéemtalaay kàttan ci lu baax di jéem suñu kéemtalaay kàttan ci ci ci delluwaat ci ci ci ci njàngaleem ak li mu fi bàyyi woon waaw cant gi moom du doy mukk ñu ngi sant jëwriñ yëpp rek waaw sëñ Modou ñag sëñ sëñ Agneloo ñoom ñëpp rek dañoo baax waaye ñoom ñoo ñuy soññ ñoo ñu soññ bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaw jëwr liggéey bi nag noonu la ma maanaam lépp loo leen gis fii rek xam ne maanaam ñii fi ñëw ñoo ko def macha allah te nag ay ay ay ndongo daara la ñoo xam ne fii lañ fii lañ nekkoon fii lañ yeroo waaw màggee fi macha allah Serigne Saliou def si ñoom li mu def si ñoom macha la ñu génnee fi nag ak yeneen mbokki taalibe yoo xam ne macha allah bokkuñu fi woon am na ñoo xam ne si hôpital lañ nekk am na ñoo xam tamit yeneen mbokki taalibe rek ñëpp daal ñëpp koo xam ne bëgg lu baax ñëw ñëw ñëw bokk ci waaw. am na solo lool nag comme ni ñu ko gars yi defee dangay fexe am numéro kii numéro whatsapp bi rek boo ko ci numéro numéro suñu Ibrahima Diouf waaw bu ko defee ñu ñu tàbbal la si kii bi chaque année dañ koy def incha allah rabbi donc bii nag mooy troisième édition bi. jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou ñu ngi nuyu ñëpp ku si nekk sa tur ak sant euh, di leen ziara di wax ni war yàlla jotaay bi am na solo lool lool lool lool solo gi nag moo di ak lépp ab cant moo di fi yàlla dogal fi lañ newoon yàlla dogal fi lañ newoon ba tey jii ñu ñëw doon doon doon doon fekk ñoom ay ndogo loolu nag dama man ab cant laa ko jàppee ndaxte euh, ku ku sëriñ bi dimbali boole si boppam ba tax ba tey ji nga ñëw di ko fàttali waat loolu moom cant féetu ko kaw di wax ni liggéey bi nag comme ni nga ko waxee rek liggéey moom da di liggéeyal sëriñ Touba liggéey sëriñ Saliou te it euh, liggéeyal sëriñ Saliou amul tànk ginnaaw amul tànk tànk kanam la am na nga koy xamee mooy yëf yi njëkkoon ak si topp ak yi topp ak tey ji soo gisee évolution bi dafa dafa dafa gaaw lool waaw dafa gaaw lool lool nag ngay war a xam ni lii euh, mbirum sëñ bi la waaw te it ñun ñu ko ñun ñu ko ñun ñu ko taxawal euh, bañ ko taxawal loolu kese la si jublu woon moo di jublu soo liggéey sëriñ bi ndax ñu yàlla doon daara ji lañ woon lu ñu am as ñëw ñëw bokkoo ak ñoom euh, toog gën waxtaan sëriñ bi fàttalikuwaat daara ja fàttalikuwaat démb waaw daal di ñaan taal loxo ñaanal ñu del delluwaat loolu rek moo a ñëw ci waaw loolu rek moo waral ñëw ndax dañuy dañ ñoom dañ dañ ci biñu ñooy ñooy suñu sànq ndaxte mënuñoo am lu leen gën a kawe mooy dongub Serigne Saliou ñun ñun ñun ñu nekkoon si seen biir mënuñoo am lu gën a kawe dongub Serigne Saliou waaw ñun nag xam nañ loolu ñun ñi nekkoon seen biir xam nañ loolu waaw moo tax nag euh, daanaka xol bi daa fees cant gi ba mënuñoo développé lu bëree bëri waaye dañuy sant rek ba ci sama gaa yi nga xamante ne yàlla woon na jëf nañ fi sama jëwri ñu nekk côté euh, Italie jëf nañ fi jëf yi am solo ku mel ni Jibril Jibril Diorno ak maam Alla ak euh, sama benn sama benn mag tamit bu nekk euh, Paris ku ñaan Serigne Khadim Ngom ak sama benn mag boobu ñu bokk ndey ak baay ku ñaan Serigne Khadim Ndiaye ñoom tamit jëf nañ fi jëf ju am solo wax dëgg yàlla jëf nañ fi jëf gu kawe ba pare ànd sa yéene nag xam naa luy seen yéene sax mooy teewoon waaye yàlla dogoon na jot beeg ma matewul waa waaw moo tax nag ñun wax dëgg yàlla ñoo leen sant di gërëm gaa yi fi daje yëpp yàlla di di bég lool di lool bi mbégte moom kawe na kawe goo xam ne ni euh, lott nañ fi lott nañ sax di ko tudd barke borom Tuubaa waaw lu ñuy def daal mooy ñaan yàlla déwee na suñu borom gën ñoo kàttanal bañ gën koo jekku waaw bañ gën koo jekku saaxiroon na bàcc na barke Serigne Saliou te lépp lu ñu def nag yàlla defal ñu tawfeex ba lenn loo dañ duru am ngifsal mu bañ ci am waaw lépp lenn loo xam ne dañ am ndaw jëf mu bañ ci am suñu dara am rek yàlla yàlla na fi am waaw yàlla ñu sëriñ bi dimbalee loolu di ñaan nag yàlla yàlla ñu fekk at yu bari rek si barke Serigne Saliou bëggati nañ lool nag waaw bëggati nañ lool <laughs> barke Serigne yàlla moom xol bee fees ba daanaka lu bëree bëri mënuñu ko développé waaw ah, di sandaat Serigne Saliou bu baax rek di ko sandaat sandaat bu baax a baax waaw sant Serigne Saliou bu baax jërëjëf Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou ah ndax liggéey bi kat daa doon liggéey boo xamante ni euh, ku ci yàlla suñu borom tette ba nga dugg ci di ci liggéey rek ah yaakaar naa ne rafet nañ jot ne am nañ tawfeexu suñu borom ndax yaakaar naa ne bari na ñun bàyyi ginnaaw wala ñu bëggoon a teew te egsi wuñu waaye ginnaaw bi ñu ci yàlla suñu borom boolee ak Serigne Saliou ban teew fii ci xel kom ànd kook suñuy jëwriñ Ibrahima mii nga xamante ni tey jii wax dëgg yàlla liggéey bu baax bu mu nekk rek ñu ko yëgal ñu bokk tamit mat bul Matlaboul ni bu Serigne saaliw kon yaakaar naa ne loolu du hasard kon liggéey boobu tawféex la moo tax may wax ak mbaaxam léegi ndax ki nga bokkal hôpitalu Serigne Saliou Mbacke moom it mu doon ndongob Serigne Saliou nekkoon Xelkom ba yàlla sunu borom dimbali ko mu mu mu sëriñ Saliou indi ko hôpitalu janatu mu dem ba ànd ak kuréel gu rëy ah di ànd di def liggéey bii nga xamante ni du liggéey bu ndaw ku ko xeeb yërëm naa la ndax du liggéey bu tuut ñu ko bëgg bari nan ñu ngi seeni seen ak seeni i waaye xamuñu fan la ñuy jaar kon bu ñu doonee ay ndaw yàlla sunu borom tettañu ñu am xelu am yëg-yëgu yëkkati sunu alal ak sunu doolee ak suñu jot ak suñu yitte yëpp dagg ko ngir sëriñ Saliou kooku dañuy sant sëriñ Saliou bu baax a baax a baax te xam ne. ñi ngi rafet njot ni am nañ tawféexu sunu borom ñun nag dañ di as dongay Baay faa rek ñu wax loonu waaye ñi ngi ñaan ci mbaaxu yàlla ngëne lu ñor màkka seriñ Serigne Touba Cheikh Ibra luñ fi jëf ci ren balaa déwén bu soobee yàlla fekk ñu ngi jëf lu ko raw lu ko raw lu ko raw lu ko raw téeméeru junni yoon ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp kontaan nañ lool sunu xol sedd na te am na yaakaar ne suñu jëf jii ah du jëf ju ndaw wax dëgg yàlla du jëf ju ñaw ñi ngi sant bu baax di sant ñëpp kon ñu ngi wàccee suñu kàddu ah, di jëlaat kàddu gi di ko jox euh, sëñ moodu <laughs> mu doxal waaye nag sant na ñëpp gërëm nañ ñëpp di la ñaanal yow it yàlla suñu borom defal la tawféex nga dem ba nga xamante ni yàlla may la sa tele bopp ngay liggéey lu kawe sa njott ci doole Serigne Touba Cheikh Ibra gis nañ ni wax dëgg yàlla si suba ba léegi noppalu woo waaye mel na ne liñ fi waroon a wax yëpp gaa yi fi jaar wax nañ ko xanaa kay di leen jot li kàddu yi sant yu jóge ci jëwriñ Ibrahima di sant mbooloo mi muy góor yi ak jigéen ñi ci niin ànd ak moom liggéey bi te xanaa kay di leen ñaax pour ñu gën cee góorluwaat ndax soo ñëwee mënut a ñàkk waaye wax dëgg yàlla niñ ko war a taxawee yëpp gis na ko di sant it xaritam yi nga xam ne mbokki safooram lañ dagg seen yiite jël seen waruwaay ànd ceeg moom liggéey bi. waaw liggéey bi nag damay wax ne du lu ndaw te boo xoolee benn côté dama li may faral di wax mooy bor la su ma nee bor nag du suñ digganteeg sëñ Saaliw ndax sëñ sëñ Saaliw amalante wuñ kenn ak bor waaye bor la suñ digganteeg tout tànk yi nekk ci daara ji ndax képp koo xam ni ci keppaar gi nga yoroo jaar nga fi ba nga fiy nekk lu mel ni dañ la ko daal defal ñu gën cee ràññee ci sëñ Cheikh Béthio Thioune yal na ko yàlla yërëm sëñ Aatu Jaañ ak ñeneen ak ñeneen kon bu demee tey bu jógee ci daara ji war nañu wëlbatiku di leen nemmeeku ci lu mel nii loolu nag kenn kenn ku nekk ci ñun muy ku nekk ci daara ji muy soppi Sëñ Saaliw am nga yéene liggéey boobu waaye lu mën a mel njiit mënut a ñàkk ci liggéey kon Sëñ Ibrahima bu xoolee ne ñëw leen ñu ànd liggéey bi loolu defe naa ak cant la ñu ngi koy sant bu baax ci woo gi mu woo pour ñu ànd ci liggéey bi waaye tamit li wax ne mbooloo mi tamit Ibrahima mi ngi leen di jot li kàddu yi sant leen sant bu baax a baax a baax di ñaan nag suñu borom defal ñu tawféex ñu gën koo man saa yu ne bis bu ñëw gën a dàq wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. ñaan suñu borom maa si jégal ci barkeb Serigne Saliou ngeen di siyaar bu baax daanaka kàddu yi moom du gudd kàddu yi sant lay doon ak kàddu ñaan ñu ngi leen di sant bu baax si jëf ju ji ngeen jëf te yàlla rek tax ak sëriñ bi ñu ngi ñaan suñ borom nangu ko te ful ko defal leen si ak yokkute ci saayar ak si baati waaw ndax li ngeen def daal na leen biir ne mooy bëgg-bëgg sëriñ bi ndax sëriñ bi de amut woon lenn lu njabootam gi mooy dongaam yi ndax mos naa wax ne dégg naa si mag mu wax ne sëriñ bi nee na ku sëriñ Tuubaa seen jëmm yi moom ko gënal waaw kon nag ku ko fonkale tout tànkam yi moom kooku moom yow sa sa sa jëf kenn xamul nu mu toll kon loolu ñu ngi leen si sant bu baax ñu ñaan seen jëf ji rëy ji sëriñ bi nangu ko dinaa ba ko nangoo yàlla na leen ko fulal làqal leen ko foo xam ne yàqu dafa yegg dafa leen si ak yokkute nag si saayir ak si baatin ba kenn bu bu waxtu wi dikkatee kenn si yéen rek suñu borom kàttanal ko wéral ko def ko ah, ay ay xéwal ba man koo taxawu moom rek si barkib Serigne Touba ñu ngi sant bu baax te cant gi ñu ngi koy awee si Ibrahima Serigne Ibrahima Diouf mi nga xam ne mooy jëriñ ji moom buñ ko tuddee rek man nga ne tudd na ñëpp ba ba ba gën a tuuti si mbooloon ñu ngi leen di seeral ak cant boo xam ne ñu ngi koy tibbi suñ suñu xol. ak i ñaan te di leen gërëm di leen sant bu baax di leen defal di leen ñaanal ak yokkute si saayir ak si baati ñaanal sëñ Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd ak wér barke sëriñ Saliou di ñaanal sëñ fi yàgg loolu te ànd ak wér di ñi ñu àndal liggéey bi ñëpp ñuy waa kër sëriñ Saliou ñu jóge ba Touba ñenn ñu jóge ba yeneen dëkk yi ñëw ngir fekk liggéey bi ngir defal ko ndongo yi ndax fii lañ woon te jamono jañ fi nekk sàkk woon nañ ñu ñu ko defal buñ demee nag ba yàlla dogal tey ñu dem ba am mébét yooyu ak yéene ji di ko def kon loolu dañ ciy sant yàlla bu baax di ci nuyu bu baax jëriñ sëñ Ibrahima Diouf ak mboolem ñu mu kàndal ba ci soxna yi di ñaanal ñëpp ñun moo amuñu dara luñ ci wax bu ñu waxee rek daanaka dañuy juum ñu ngi ñaanal ñëpp te lépp liñ fi def nii ren déwén bu dikkee yàlla nag gën a fulu barkeb Serigne Saliou mbokk yi ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen nuyu Euh, waaye ñoo ngi santaat bu baax Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké euh, di ñaan suñ borom fayal ñu ko bu baax di ñaan suñ borom fayal ñu ko bu baax ci barkeb Serigne Saliou waaye ñoo ngi siyaare bu baax ñi nga xam ne ñoo yor site bi ànd ak ñun Touba ba fii ngir wane liggéeyub Serigne Touba bii nga xam ne moo gën a kawe ci àdduna ndax kat ginnaaw àdduna ñëpp a ngi wane li nga xam ne ay caaxaan la. wala li nga xam ne seen mbiru bopp la waaye li nga xam ne mbirum adduna la nga di ko wane rawatina ñoo xam ne dañoo jug di ànd di liggéeyal Serigne Touba rawatina ñoo xam ne dañoo takkaayoon laxasaayu bàyyi seen day bàyyi seen baay bàyyi adduna ñëw nekk ko takk fas yéene liggéey yàlla si toolu xel Xelcom yii ñu ñëw fii nag ànd ak ku mel ni Cheikh Ibrahima Diouf ak soxna yi nga xam ne ñoom lañ àndal ak mboolem donga yi nga xam ne ñoom la sëriñ bi ànd moom la sëriñ bi yoroon ci daara yi ñu ñëw ànd ak ñun. ak ñenn ñi nga xam ne ay soppali ñëwaat ànd ak ñun liggéey bi loola nag ñu ko defee dañoo bëgg a fay naar bi xorom si te mënaguñ kaa fay ndax moom Serigne Saliou day lim ñu defal bu fekkoon ne dañ koy jéem a fay dañuy dox ba faaw rek waaye duñ ko mën a fay ci àdduna ndax suñuy bàyyi lottoon na ci defar ñu suñuy ndey lottu ñu ci defar ñu waaye moom Serigne bi moo ñu defar ba ku ñu gis bëgg mel ni ñun te bëgguñoo mel ni kenn ñun day ni ab xaj toppee woon borom noonu lañ fas yéenee toppee Serigne Saliou ndax kat kenn ku nekk. yaa ngi naan dong ngay Serigne Saliou yi dañoo bëgg ku dul Serigne Saliou ñun ñoo tey bëgg keneen ku dul Serigne Saliou ñun bëgguñ ku dul Serigne Saliou keneen kuñ bëgg dañoo dañoo dañoo saytaane rek topp ko ndax xamuñ kenn bu fekkoon ne dañoo xam keneen kookee la ñuy topp waaye ñàkk xam kenn ñàkk gis kenn ñàkk ràññee kenn waaye juddu suñuy nday suñuy bët fet ñu jox ñu Serigne Saliou moom képp lañ mën a xam kon tey buñ defee lii ñëw fii di indi ay ndogu di nga toggal dongo yi. day mel ni wu waru warut doon ñun ci ñun loo xam ne nii gan la déedéet dañ ñu ko daan defal te bu ceeb daan mës a ñëw ñun ñii ñoo ko daan gën a bëgg ñii ñu fekk tey ndax booba la gënoon na tumuraanke booba la gënoon na maanaam jafe tey jii nag ñun buñ ko dee def day mel ni dañuy jéem a maam góorgóorlu ña ko daan def ñu jéem a aw seen tànk di ko defalaat ñii bu ëllëgee ñun buñ demee ba toog suñuy sët ak suñuy doom di ko defaat loolee dong la lii mooy liggéeyu Serigne Touba Serigne Saliou nag naxuñu fam ñu jëlee fi ñu jëmee ko gën fuuf Xelcom ji képp ku fi ñëw indi fi sa bërëm wala nga dugg ci daare jii tàbbal fi sa bërëm na nga xam ne fii lan la koy defal te fii moom moo gën ñu jël ab xaalis dajale ko ba mu àgg dem di ko siyaare gub sëriñ sëriñ ba nga koy siyaaree da ngay jël yóbbaat ko ci ay taalibeem kon buñ ko defee fii jox nañ ko sëriñ Saliou kon ñi ngi soññiwaat suñu bopp di ñi nga xam ne ñu ngi ci biir daara jii ci biir daara ji ñi ci nekk ñoom la ñuy soññiwaat ci soññ gi ñu leen soññ mooy nañu bañ a jàpp ne at ba at mooy liggéey bi liggéey bi tey jii lañ war a tàmbali dem déwén kenn ku nekk da war a yaakaar ne liggéey bi sab liggéeya. Euh, waa groupe bi ñu leen nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax di dellu bi waa bi nga xam si ñuy waa Assalaamy TV di leen ziar bu baax a baax a baax di rafetlu seen liggéey di leen jaajëfal ñëpp daal di sant ñëpp ak taxawaay bi yëpp di sant Serigne Saliou bu baax a baax a baax. waaw ah, sant googee ñuy sant sëriñ Saliou nag du ko jaarale ci loxoy sëriñ Ibrahima Diouf mi nga xam si ni moo waral eh, lii tey moo ñu ci dimbale ba lii lépp mën a taxaw waaw ah, ñu ci sant sëriñ Tuubaa bu baax baax di sant sëriñ Saliou li ñu wax rek ni ñu yëpp wax mooy sëriñ Saliou ñun ñii amuñu fayam kenn ci ñu amu fayam moo tax ma ne ko sa jëmm jee nu gënal luñ mën di am na nga xam lu dul sa jëmm ji loolee nag nañuy sori tam Cheikh Bamba mooy ki la def leeram ko jolli tefes leeral nga gaa yi fi leer kenn dootu xëy fa itam yow yaa fi tëll di wax jox leen ma ndaw ñi de ndax ma def ci ñoom li fi daam daa def ca mag ña ndaxam te samp sa dëkk def ci daara daara yu mag yóbbu ca say dong jàngal leen te leen di yërëm ñun de li ñëpp di war moo xëy ni téppi fi ñun jox nuy nga nee lakk mbir leeral ñu yoon wu lëndëm man yaa ma saf yaa ma jommal yow de laay pukkaro danaa fi yuuxu te naa wooy wooy ndeyaa ma ëlëm sab samp kenn du ko fel kuy fel li nga fal ay daan di ci sa kaw sak bon yokk nga xam asalaamaaleykum ñu ngi jaajëfal ñëpp leen siyaare di wax baax tey wasaxi aari numari ila sawi takaburi kal badri wasta anjumi yawman bi istadan nidaal yawman bi istadan xirawal yawma taaru fi rijaal yawma ridawal wajami وذلك اليوم فلاح لي ذي اقتداء ورواء لي ذي رخاء وصلاة لكل زعس مسلم يوما به قد غفرا ذنوب من قد قدرا xitaalaho rabbul wara kabiratan kalamam mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu boo leen déggee xasaayid yooyu xam ne dañoo bég Euh, ci liggéey bi ni muy doxee waaye di jël balaa balaa boobu ñu ngi nuyoo ak a siyaar xalif général kullu murid Cheikh Mahamadul Muntaxa mu yàgg fi loolu te wér mbook mboolem mboolem mboolem mboolem ay rakkam ak mboolem ñu ne ci moom ci ci ginnaaw ci ñëpp euh, di leen siyaare di leen ñaanal jàmm waaye di siyaare ak a ñaanal euh, suñu jàmbaar ja Serigne Salim Mbacke dafa na la barakat yi di ñaan ci doole Cheikhul Khadim li fekk doomu aadama nga dox ci kaw suuf a ngëneel ak i leer di wàcc ci kawam waaye Euh, jëwrinam ji fi yàlla teg muy Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Saliou moog mbooloo mi ki rakam moog mbooloo mi rakam yëpp sëñ Moustapha Saliou sëñ Jili Saliou euh, sëñ Basirou Saliou sëñ Mourtala Saliou ak mboolem njaboot gu jigéen geeg ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen siyaare waaye te ñu amaan mbégte bu baax àndaat ak waa groupe bu soppee Serigne Saliou mën na na wax groupe bu soppee Serigne Saliou ndax li ko ni ko gars yi waxee léegi Serigne Saliou mooy ki ne woon jox leen ma ndaw ñu ma def ci ñoom ñun nag am nañ chance bi Serigne Saliou toogee ci jal bi jox leen ma ndaw ñu la wax boo ko neexoon laaj ñeneen waaye ñun ndaw ñi la laaj kon ñun ndaw ñi lu ñu jëfal Serigne Saliou rek mel na ni nan ko xeeb mel na ni jëfaluñ ko dara muy koo xam ne yàlla dañoo xiir ci moom ñun ndaw ñi dañoo xiir ci Serigne Saliou ñu bëggal ko suñu bopp yàlla dimbale ñu nag mu def am lu mu def ci ñun ta te xeebuñu ko waaye nawuñu ko it di ñaanal ci doole Serigne Saliou Mbacké képp koo xam ne ñëw nga ci ndogu li ak ku ci amoon yéene ñëw yàlla defal la jàmm tawfiq ak taysir muccal la muccal mboolem jullit di ñaanal suñ mbokki dong yi ko daan àndal te yàlla dogal ñu jiitu ji yàlla na leen yàlla yërëm xaarin àjjana ci doole Seexul Xaddim waaye di siyaare ak a ñaanal Serigne Ibrahima Diouf mi nga xam ne moo jiite liggéey di njiit am pasif njiit am maanaa waaye njiit xam boppam waaye njiit lu a soññee waaye njiit lu dëggal ba tax ñim jiite ñëpp nangul ko nangoo topp ginnaawam ñu ngi koy siyaare baax Serigne Ibrahima waaye di siyaare suñu yaay booy ñu ànd liggéey bi suñu bàjjeni suñu mag yi suñu rakk yi ngi leen di siyaare di leen ñaan jàmm ñaanal bu baax Serigne Ibrahima moom mi nga xam ni moo tax nu teew fii ci daara ji fii ci Daaru Salaam ñaan bis bi daal yàlla na ko yàgg def ñu yàgg koo teewee ci barkeb Serigne Saliou ñoo ngi ñaan bu baax a baax a baax a baax a baax rek yàlla na saa borom nangu lépp ci barkeb sëriñ Saliou li fi li fi li mu fi def rek lu mu néew ak lu bari rek yàlla na ko suñu borom nangu bu defee daanaka jëwriñ yeeg jaay yëpp wax nañ lépp rek. yàlla baax ñaan xéwal gi ma rek ndox yi bëri lool waaw. andi su ah, na ko lëg doon. waaw ndox ah, ah, yi yokk xéwal. yàlla ñu yokk ay xéwal yu bëri. amiin nga nu yokk waay waaw. neex na taw feex na lool. neex na lool. neex na lool neex na lool. nag yéen suba ba léegi pour bëggal leen te ñun sëñ bi moo ñu defar sëñ bi defar nañu loo xam ne mu mënuñ koo fay fenn fenn fenn fenn loolu si yéen ñii nii waaw kontaan nañ lool ndogu yi nii ànd ak yéen bégte bu rëy lañ am barke Serigne Saliou man damaa bég. maa bëgg lool ndax sëñ bi man damaa defal loo xam ne mënu koo fay fenn moom xaw fu ma koy fay jee kon nag lii laa mun barke sëñ Saliou bëgg naa lool di ñaanal Diourné Ibrahima tamit waaw ñu koy yàgg di def si ànd ak dongo yi nii. bu baax a baax yéen ñi teew te bàyyi seen yitte yi coono yi ngeen daj yëpp ñu ngi leen koy sant yàlla na leen sama fay waaw ci barkeb Serigne Saliou ci barkeb barab bi ak dongo yi ak bi waaw sant jëwriñ ji bu baax a baax ci woyofte gi. waaw di ko sant di ko ñaanal wér ak gudd fan te ñu yàgg fee yàgg ko fee def te ñu yaatal ko waaw yàlla na ko sama boroom nangu yàlla nañ dem ba dara bu mu bañ cee rax yàlla nañu sama boroom gën a dimbali waaw kay jërë ngeen jëf. ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaare di leen talal ci jàmm tey ñaan li waral bis bi ak ki waral bis bi mu jëmee Sëñ Saliou suñu borom toolee ñu ko fayal toolee yokk ay leer ci kanam toolee ñu tax ci barkeem. te ñaan it njabootam gi suñu borom yàggal leen fi lool te wéeral leen si njiitul sëriñ Cheikh ak ay rakkam yëpp suñu borom yàggal leen fi te wéeral leen ñu yàggale mébéti sëriñ bi ànd ko ak njaboot yëpp te ñu ànd ko bi loolu ñu ngi leen di sant bu baax ci li nga xam ne defal ngeen ñu ko tey mu dagg seen ite ittee ñëw fii ci daara ji waaj seen i wàccaay ñëw fi ngir teral njaboot gi fi nekk njabootu sëriñ Saliou ngir jëmmi sëñ bi rek tax ngeen def ko it kon loolu ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm. tey ñaan sunu suñu yombalee yombalil ko lool lool ci barke Sëñ Tuubaa barke bi jëmam joojee da tax ngeen koy defit muy ngërëm li ngërëmam li ngeen ci sàkku suñu borom defar leen ko ba defar leen ci lu kaw seen jot ñun ñi ngeen fi fekk nag ñu nekkal ko fi it na nga xam ne suñu xol sedd na ci bég nañ ci bég nañ ci lool ci turu waa daara jëpp laay waxee nag waa daara yi tamit nañ ci ñu ngi leen sant bu baax tey ñaan suñu borom yokku leen wér ak kàttan ba ba ngeen ngeen koo man lu ngeen ci def ren rek bu déwénee ngeen man lu ko lu ko lu ko fukkute ci barke barke bi jëmu jooyu barke bi sëriñ Saliou jërë ngeen jëf sant nañu baax ñi ci soñ bu baax te xam ne nag moom maanaam jëf joo xam ne jëf la ju ju ci ci ñun ñi ngeen ko defal ci sëriñ bi ngeen ko defal sax jaare ko ci ñun jëf ju rëy ju rëy la ci ñun ndax xam nañ xataa jamono yi ak jafe-jafe jamono yeeg maanaam temps bi nga xam ne daa jafe lool ci nit ñi loolu lépp ngeen dagg seen yitte bàyyi ko ñëw fii fekk suñu fii ci tool yi loolu daal ñu ngi leen ci sant bu baax tey ñaan sëriñ bi tax ngeen def ko sunu borom nangul leen ngeen day tey ngërëmam ci barke Sëriñ Tuubaa jërë ngeen jëf sant nañ baax sëriñ Ibrahima ñu sant bu baax tey ñaan suñu borom nangul leen baax na jërëjëf nañ ñaan ñi ñëpp ñu teew ak ay dee bismillah bismillah rahmaan daa mënta ñàkk maa ngi jégalu nag di santaat di santaat Serigne Saliou bu baax comme suñu Modou Niang waxee waaw ñun moom amuñu lu delloo njukkal sëriñ bi waaw adduna àdduna mënuñu fee am lu gën a rëy Serigne Saliou comme ni ma ko daan waxee rek lu lu nu gën a naqari ñàkk ko gisit mënuñu ko am waaw daa def ci ñun lool àdduna moom gisuñu ko ñu ko mënal waaw te loolu yëpp sans borom la yàllaa ñu booleeg moom waaw sant sëñ moom dañoo war. delloo njukkal mooy mooy nag lu ñu am mu néew ak mu bari ñu bokk ko suñu bokki dongo yi euh, xëy na nag lii ñuy def sax da ci am buñ ko mënoon buñ ko mënoon loon suñu bopp ñun kese kon du ko jar sax waaye woote gi it day taw feex ndax lu baax boo koy def da nga war a ànd ki nit boo ci wéetee it mu baax waaye boo ci ànd nit mu gën a baax waaw moo tax na ñu ngi sant ñëpp rek di sant mbokk dongo yi di sant jëwriñ yi nga xamante ni moom la ñoom la ñu fekk si muy sunu jëwriñ ñoom suñ jóoba fay ñëpp rek ak ñoom suñ Ibrahima ak jëwriñ yeeg mbokk yëpp ak mbokki dongo yi ñu ngi di sant bu baax a baax a baax di sant it waa Assalaamy moom moom jëwriñ ji sëñ Fallou si la nga xam ne saa bu jotee dañuy booleek ndawam ngir bëgg rek ñu archivé ko ndax lii daa bokk ci archive day tax ñu gën a jaaju dañuy soññ rek bu ñu gisee vidéo bi xam ne lii ci la ñu nekkoon te waruñ cee jukk saa buñ ko xoolee suñu xel di ci ne ñoo xam ne àdduna daal fi mu ne nii riiru jamono yaatu na lool waaye li fi sëñ Saliou bàyyi woon du duñu duñu duñu duñu gis lu ko fi lu ko fi gën waaw lu ñu lu ñu lu ëppal équilibre loolu amul sëñ Saliou daal fi mu teg nañ fa teg tege lu ñu jëm suñu kéemtalaay kàttan ci lu baax di jéem suñu kéemtalaay kàttan ci ci ci ci ci ci ci njàngaleem ak li mu fi bàyyi woon waaw cant gi moom du doy mukk ñu ngi sant jëwriñ yëpp rek waaw sëñ Modou ñag sëñ sëñu aañloo ñoom ñëpp rek dañoo baax waaye ñoom ñoo ñuy soññ ñoo ñuy soññ bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatu